Euh, ñu dikkaat ak yéen ci suñu émission Al Mounawir euh, fii ci Dakar Actu ñu fas yéene jàngalantewaat fàttalantewaat suñu fàttali tey nag ñu jëmale ko ci euh, ay ñaan wala sax ci wàllu jigéen bu tolloo diggante maanaam bu tolloo ci wasin wala xale bi wér gu yaramam ak na muy juddoo ak yu ni mel. ñu sukkandiku nag ci téere Serigne Souhaïbou Mbacké ibnu xaadimu rasul li ci ëpp ci moom lañ ko sukkandikoo ci téereem boobu di Qurratul Ayni am na ci nag yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Sidqul Jawahir bu Cheikhul Xadim xaadimu rasul Serigne bu Mbacké moo ngi ñuy fàttali ak a jàngal ci téereem boobu di Qurratul Ayni nga xam ne bàyyiwul dara ci doomu aadama bi ci dundinam ak ginnaaw bu mu faatoo sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na sa soxna saa yoo bëggee jaxasaw ak moom maanaam saa yoo bëggee sëy ak moom nee na na nga am pas-pasu jariñu jariñu ca jariñ jariñu ca te jubla te jubloo féexal sa xol ca pas-pasu ca ca ca fitnay jigéen ja nga jubloo féexal sa xol ca fitnay jigéen ja nee na nga ñaan yàlla ci jamono boobu mu may la dom ju bax ju yok diine ta diko dundal te bala ngaa wuññi say awra manam bala nga summeku nga wax ñaan gi moy bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana allahumma urzuqni min hadihi ولدا waladan saaliha waj'alhu taqiyan naqiyan laysa fi xalqihi ziyaadatu wala nuqsaan waj'al aaqibatahu wa aaqibatana ila xayri ya arhamar rahimin nee ñaan googu ngay ñaan balaa ngay summi say xawra euh, nee na bëgguñ nag diggante bi nit ki nekkee ak soxnaam di sëy ak moom bëgguñu kenn ci ñoom ñaar di wax diggante boobu bëgguñu kenn di wax euh, wala sax muy xool awray moroomam mbaa muy xool awray boppam maanaam muy xool sexe moroomam wala muy xool sexe boppam comme ni ko tubaab bi di defee nee na nag boo bëggee boo sëyee ak sa soxna ba pare euh, te bëgg a sëyaat ak moom ci même guddi gi nee na su boobaa na nga dem euh, sangu farata ba set soog a ñëw sëyaat ak moom boko menunak, nak na nga dem nga raxas say awra eh, ba mu set nga daldi di siwu nga nga dem raxas say awra ba mu set nga dal dem japp ndax japp mom ngay japp ngay ngay japp man na oyofal janaba ji ndax ko amé janaba bëgguñu muy nelaw ta sanguwul ba muy lek ba muy naan ndax poram yépp di ubbeeku kon lolu ñu bayiko xel kon bo sey ak soxna ba paré te bëgg sëyaat ak mom ci même te sangu nen na nga dem raxas awra ba mu set nga dal di dem japp ndax japp momu man na oyefal janaba ji waye bul teud nonu te te sango wala ngay lek te sango ba ngay nan aha waye japp momu nak do ci meuna julli do ci meuna lal lo ci meuna lal alquran do ci meuna dugg ci jakkol yu mel non mom japp mom day dal di oyefal janaba ji rek ne bu ambe wéram bu ñëk war na ci moytu soow mu ak naan daqaar manam ak lek daqaar ak bisaab ak vinegar ak xeetu yu forox yépp neena li jigen ci weer bu ñëk war na koy moytu ko xamne dafa yara dal moy ko xamne lu mu jur mu faatu dom ju mu am mu faatu neena koko nañu bind basmala moy bismillahir rahmanir rahim nañ ko bind 61 fois bu ko defé ñu takal koko suñ borom dina ko musal ci yaradal googu mu yaradal moy dom jum am mu faatu mo ne jigen bu ambe, sop nañu ko bind li takal koko bu amé dom bu dee góor ñu takal koko ci loxo ndey joram bu dee jigéen ñu takal koko ci loxo chamoñam nee lolu mom ku ñu ko defal suñ borom dana ko daldi euh, ar ci euh, daraja yaronte bi sallallahu alaihi wasallam. lolu nak mo nek ni موي آية القرآن بي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه إن ذلك على الله يسير وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kitaabihi wa kaanat min alqaanitiin dal ciy bind li tamit laqad yajmacu llahu chatitayni baadama yazunnaani kulla zanni allaa talaaqaya nee na loolu lañ koy bindal ñi takkal ko ko bu doom ji juddoo bu dee góor bu dee takkal ko ko ci loxo ndeyjooram bu dee jigéen ñu takkal ko ko ci loxo càmmoñam Mune jigen bu jappé aw mat manam bu tolo ci matu toll ci wasin euh, bokk na ci li gawal mat wi bu fekke dafa sonu lol ba ñepp di xalaat naan ki dañ ko wara opéré rek duñ ko opéré rek ndax mat wi dal metti na sonna lol sonna lol na nañu bind li safara euh ñu jox ko ko euh, moy da ngay def da ngay bind bismillahir rahmanir rahim samaa'un shaqqat وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت نتيون نكوي بند دال دي بند ولدت حنة مريم وولدت مريم عيسى عليه السلام أخرج يا ولد أدعوك يا ولد بحق اسم الله العظيم الأعظم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما لأولي الألباب يا خالق النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس خلصها نينا لي لا نيو بيند ني راخاس كو مو نان تيا موم جيجين جاغا خامن دا فا تول سي ماتو دال لي ويس لا تي ديس لو كوماسي سي جومبا خام با سي جيم سوف با سي بتي اومم با سي با سي اومم nee na bu ko defee matt wa dina gaaw incha allahu rabi te du sonn mu ne bu doom jo bu doom jo juddoo nag sopp nañu ko jàng saaru ina inna anzalnahu dal di noddu tefle ko ca nopp ndeyjooram dal di liqaam tefli ko ca nopp càmmoñam bu doom ji di soog a juddu nee na loolu xale buñ ko defal sunu borom dina ko musal ci pakki diine yu bari maanaam ci lépp loo xam ne diine daf koy bañ sopp nañu itam xale bi buy soog a juddu lu saf suukar jiitu ci làmmiñam lu mel ne lem wala tàndarma ñu nooyal ko Euh, ba mu nooy ñu euh, jox ko ko sexal ko ko sopp nañu itam ku bind sóoratul xaqa alxaqa raxas ko defal ko ko toqantal euh, mu naan ko buy door a judd moom xale bi sopp nañu itam ku bind sóoratul balad nga takkal ko ko nga takkal ko xale bi xale bi tamit bu amee juróom ñaari fan ñu tudd ko te tudd ga ñu rayal ko xar mu mucc ayib xar mo xamne laggewul patul nee na mu doon am xar mo gën buñu ko amul aw bay buñu ko amul luñu am baxna na nak euh mu ne juroom ñaari fan ya Nak, euh, kenn du ko kenn du ci limalé bis bo xamné Da juddu ginnaw fajar manam juroom ñaari fan ya dane bu amee juróom-ñaari fan juroom ñaari fan nañ ko tuddu waaye juroom ñaari fan ya Nak kenn du ci limalé bis bo xamné dafa juddu euh, euh, euh, ginnaw fajar bu kon bis ba mu juddo mom lañuy lim euh kon fajar gi mu ñëk fekke mom lañuy lim ba ca juroom ñaareel ba mu soga doon tuddu ba bu juddo ci waxtu fajar mana sek fajar kon jour bobu desu ko man man kon jour bobu des na ko limalé bu fekkee dafa ma sek fajar bis bobu des na ko limalé harma xarma xarma ñi ray nak ci tuduma bu yor yor yoté ba jant di soo mënees na ko rey waaye bu jant fenkagul nag wala ginnaaw bu jant ba sowee ñaar yi fu ñu ko fi reyee ak ndawal rek lañu am waaye amuñu mm, xarum tudd sopp nañu tamit bu ñu koy tudd tur wa ànd xarma maanaam kii tudd euh, bu tiimee xale bi kay war a rendi xar mi bu ñu ne bisimilah rek mu ànd ak mi maanaam bu bu ñuy tudd ci nopp bi mu ànd ak rendi xar mi loolu tamit sopp nañ ko nee tamit euh, euh, bu fekkente ne ay seex lañ kenn ku ne dafa war a am xarum boppam dañ ko war a xarum boppam sopp nañu itam ñu wat xale bi kii soog a judd balaa ñu koy tuddu dañ ko war a wat buñ ko balaa ñu koy tudd nag lañ koy wat buñ ko watee ba pare nag ñu daal di jël kawar ga peese ko ak xaalis wala wurus daal di jël kawar ga suul ko daal di jël xaalis ba saraxe ko maanaam lu tolloog diisaayu euh, kawar ga moom la ñuy saraxe ci xaalis wala ci or wala yun mel. Euh, bala ñu koy tudd kon la ñu koy wat loolu ñu bay ci xel ndawalu ko xarum tudd ma nag dees na ca lekk dees na ca saraxe te sax nag balaa moo doon euh, am tudd dañ cey saraxe ba pare doom ja nag dee ko taqal dara ci xar ma yooyu moom ay bidaa ak ay aada mu ne xale nag bu fekkee judduwaalewul bakkan ak ku faatu avant jour tudd ba nee na deesu leen reyal xar waaye dees na leen tudd balaa ñu leen di suul balaa ñu leen di denc dees na leen tudd koo xam ne juddu wàllul bakkan wala ko faatu avant jour tudd ba deesu leen rayal xar waaye dees na leen tudd balaa ñu leen di suul koo xam ne amoo loo tudde nag saa yu la neexee man nga koo tudd waaye nag yor yoor moo ci gën ñu rappelewaat waat ko bu baax sopp nañu itam ñu bañ a yam ci xarum tudd ma ut leneen loo xam ne dañu koy yaatale teraanga ya ngir mbooloo mu fay teew sopp nañu itam ki koy tudd bu ñu andee liir ba ba mu tiim ko bala mu koo tudd na wax lii tifli ko liir bi soo ko tudd mooy bismillahi arrahmani arrahim allahumma laka alhamdu ala ma aatayt wa awlayt wa asdayt allahumma zidna wala tanxusna wa akrimna wala tuhinna wa wa aatina wala wa aathirna wala tuuthir ahadan alayna wa bi alkaafi ikfina Allahumma اجعله برا تقيا ولا تجعله fajiran شقيا tudd nak naka lañ koy defé lu yomb la néna da ngay noddu tifli ci nopum nday yoram dal nako dal di tuddu turu wane ko tudde na la diw dal di liqam tifli ci noppum chamuñam nonu lañuy tuddé bu ko defé nga dal di wax ki ren xar mi ne ko di noddu tifli ci nopp ndey yoram liqam tifli tifli ci nopp càmmoyam ne ko la diw bo noppé nak yow mi koy tuddu nga tek loxom ci nakatal ba moy ci digg bobbi ni da nga gis bobbi am lu mel genre wax buy tëf tëfi lolou lañuy wax nakatal ci olof nee su boba nga jël sa loxo tek ko fa nga wax ya barru 7 fois ya raqibu 7 fois ya rashidu 7 fois dalé wax uiduka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin laamma loolu ngay wax ñetti yoon daal koy tëfli ca naqatal ba mu ne xale buy nàmp bu ñu ko bu ñu ko takkalee sóoratu naas yi yàlla dana ko aar ba lépp luy xeetu ji nekk seytaane feebar yëpp dara du ko dal bu ñu bindee sóoratu naas yi ñu takkal ko ko fu ñu ko ko takkal nag baax na. nee na xale bu feebaree feebaru njàmbutaan wala muy saqat nañu koy jox meewum bëy meewum bëy moo xam ne dañ koo ratt ca tàngoor wa ñu jox ko ko mu di ko naan bu ñu ko mënul am ca tàngoor wa ñu jël meewum bëy ma tàngoor ko ba mu xaw nugg tuuti bu ko defee ñu ko koy jox mu koy naan. te di ko jox kuddu gu ndaw ci lem suba ak ngoon bu noppam dee metti lii nag moo xam xale la moo xam mag bu noppam dee metti wala noppam bënn nee na nañu wut weex weexum nen am nen nga toj ko la cay weex nga sotti ko ci sa nopp loolu dana waral nopp bi metti euh, dal di saafarawu walla nga nuggal diwug ñor tifli ko ca wala nga nuggal nuggal diwug ñor euh, toqal toqal ko ca loolu dina faj boobu euh, nopp buy metti nee na bu biiram di metti wala sax ku bi sa biir di metti nee nga bind aaya bii qaala firawnu wa ma rabbul alamin ba ca in kunta min as-sadiqin ak suratu tiini bu ko defee ñu raxas ko mu naan ca loolu ku sa biir di metti boo ko defee incha allahu rabbi dina saafarawu nee na xale buy sawlal nañu koy jox ndoxum naanaa mu di ko naan suba teel muy bàyyi naan guddi te balaa euh, tëdd dem sawi xale bu dee lekk suuf néna nañu bind li ci mburu mu lek ko moy bismillahir rahmanir rahim fasbir sabran jamila dal di bind wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا, واتقوا الله wattaqu llaaha laallakum tuflixuun nee na loolu la ñuy bind bu ko defee ci mburu jox ko xale bi mu dal koy lekk bu fekkee dafay lekk suuf loolu dina waral mu dañ xale buy feeñal maanaam buy génne ay bëñ te mu metti lool ci moom nee na nañuy jàng ayatul kursi yi fukki yoon ak saaru li ilaay fi xorosin ñetti yoon ñu di ko tifli ca gimiñ ga subaak ngoon wala ñu wut yuuruk xar yuuruk xar lañu wut boole kook lem ak yuuruk xar ak lem ak dax ñetti yooyu la wut ñu jaxase ko yuuruk xar lem ak dax jaxase ko di ko diw ca siiñum xale ma bu fekkee xale bi dafay feeñal te feeñal ba metti nee na loolu dina ca am saafara incha allah ولا صح ني ووت دوغي بي سونا صاف تي توتي دبكو ديف تي سوكر خيوكو موم خالي بي مودي تي نان موم اك يايام مي كوي نامبال نينا فينيال غا بنيي جين دي ميتي دانا سافرو موني كو اب ياخ غالين كو خامني اب ياخ دانا غالين سا بات ولا لو مانا دون لو خامني دالاي تري ليك ولا مولاي تري نان ولا بوي نان موي ميتي دا ngay jang fatiha ben yon dal di jang bismillah mujriha wa mursiha inna rabbi la ghafurur dal di jàng saaru li ilaay xoresin nga tifli ko ci ndox naan ko boo ko defee yax bi la galanoon galañoon dina dal di dañ mu ne ku amee estomac na wut meewum gàtt meewum gàtt nag bu ko waxee mooy meewum xar wala bëy bu ko defee euh, nga def ci tuuti xorom pole di ko naan suba ak ngoon te ngay moytu lekk lu niin ak xeetu yu forox yi nga koy moytu mu ne ko wànneen nañuy jàng ñaari bayit yi di ko tifli ca bët ya mooy yaa naawariya bi yanqubin uidu kama mimma staada bihi id massahu lkamalu qamisu yusufa is jaa albashiru bihi bi xaqi yusufa idhab ayuha ramad loolu la ñuy jàng di ko tifle ci bët ya euh, mu ne ku bëñam di metti koo xam ne dafa amee bañ buy metti wala ay bëñ yu metti da koo sonal lool nay ut kuuraay kuuraay di ko suuroo li ñuy wax kuuraay wala mu dëbb fuddan jaxase koog lem tay ko ca bañ bay metti wala boog mu bind aya bi ci mburu sàqame ko bam mu mu sànne ko ab xaj aya bobu nak mo nek ni day bind aya bi aya bi ci mburu mu sàqame ko ci bagn bay metti bam mu mu dat di koy yàbbi xool ab xaj mu sànni ko ko aaya boobu nag moo nekk nii bismillahi rahmaani rahim alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al mawti fa qala موتوا موتوا muutu muutu muutu noonu mu kuy bori na soti ko xamne day bori manam deret ju bari day gene ci bakanam na soti ndox mu sedd nañu soti ndox mu sedd ci dox go tamu jaxaan te ñu bindal ko aya bi ci jëba li kulli naba im mustaqarru wa sawfa ta'lamun aya bobu la bind ci jëba mu ko defé mu dal jaxaan ñu soti ndox mu sedd ci dox ba ko amé bir buy daw neena na nga wut nen nga baxale ko vinaigre dal dal di lek pëdd ba bu dee biirub tëññ nee nga wut meewum nak tàngal ko naan ko te sangu ab diir nee na ku seere na nga wut meewam xar def ca xorom naan ko koo xam da ngaa seere ku amee gàddaam ku amee borom bopp ku ay bëtam di metti ku boppam di metti ku amee mbolongaan xale bu bari ay jooy wala muy tiit guddi xale bu dul nelaw guddi wala muy wàccu ku amee feebaru tàngoor lu mel ne sibiru ku ëmb yépp ku ko soxlaa xam mën ngaa dem ci téereb sëriñ Sohayb bu Mbàkke ibnu Xaadim Rasul bi tudd Qurratul Ayni am na traduction français boo demee ci page 84 ba 100 fa la gën a yaatoo ndax ñun dañuy tënk rek sëriñ Sohayb bu Mbàkke nee na xale bu amee juróomi at wares na ko tàggat ci jikko yu rafet di ko wax muy lekke ndey jooram di laaboo càmmooñam bu ëbbalee nga déggal ko mu tëj gémmiñam tëj miñam dal di wax a'udhu billahi minash ashaytaani rajim euh te bala def dara nay wax bismillah nga tamal ko mu wax bismillah lépp lépp lu muy def defati mu wax bismillah nga bayilaw ko saga ak ñàkki tegin euh diko diggal nay ñando chamoñam bu tislé nga diggal ko mu wax alhamdullilah bu amé 6 ans nak néna na wares na xarafal ta dalal ko alquran néna bu amé 8 ans ñu beral ko lalu boppam bu mu tëdd ak yaayam bu mu tëdd ak xale yu xale yu jigéen euh, nee na même bu dee tëdd ak xale yu góor na dara dox ci seen diggante waaye bu seen yaram di laalante ndax loolu euh, euh, sirru bu rëy mi ngi fi sakiru bu rëy mi ngi fi ndax bari na ay góor jigéen yoo xamante ni loolu la seen góor jigéen foofu la commencé di tëdd ak say moroomi góor seen yaram di laalante nee na amee 12 ans moom xale bi ñu xamal ko faratay diineem ak maslay adinam bu amé 13 ans ñu diko digal julli ak koor bu bañé ñu dóor ko bu amé 13 ans nañ koy digal julli ak koor bu bañé nak nañ ko dóor waye nena bu amé 18 ans bu nangul julli nangul or sëriñ Sonke nee na nañ ko yóbbu ci ka amé batub l'islam mu ray ko rayub gëtën du sama wax nak waxi sëriñ son yu Mbàkke la te mom waxi l'islam rek lay netti euh nena bu amé 16 ans buñ ko mënee dencal soxna ñu dencal ko soxna mu ne xale bi tamit bu ñu koy feral xale bi yaayam bu ko ëmbee juróom ñaari weer maanaam bu fekkee daf ko ëmb 7 mois kon mën na koo nàmpal ñaar fukki weer ak ñett mooy 23 mois bu fekkee juróom-ñeenti weer nag la ko ëmb mooy 9 mois. yaayam mën na ko nàmpal 21 mois waaye nag saa yu yaayam ëmbee xale boobu dañ ko war a dal di gaaw a feral mu ko wasin sopp nañu bu setee ba sang balaa sëyaat ak borom këram minimum mu toog 40 jours maanaam koo xam dafay soog a wasin dereti wasin ji bu jeexee dereti wasin nag dina dem ba des fois 2 mois maximum deux mois la waaye mën na ñëw ci même bis bi jeex mën na dem 15 jours jeex mën na dem 1 mois jeex. bu passé 2 mois te deret yi arrêté wul na dem sangu te dem jullit te sëy soxna te xam te borom kër sëy ak sa borom kër te xam ne léegi wasin kon léegi nag seen émission bi nee na euh, wasin bu wasin bu fekkente ne deretam jeex na. na toog minimum 40 jours mu soog a commencé sëyaat ak borom këram euh, mu ne ku ëmb nag war nay moytu yëngatu bu bari ak yëkkati lu diis ak yóotu kawe ak lekk lu weex mbaa naan ko nee na bu amagul 6 mois bu mu nàndalu maanaam def loo xamante ni euh, day waral sa biir euh, di maanaam def lu lay tekki daal loo xam ne sa biir dootu seere bu ko ma bu ko mënee bu ma bu ma nee nàndalu moom nàndalu bu bu bu bu amul 6 mois. bu mu nandal way bu ko amé nak man nay nandal lu melni lay dur mu woyef bu ko amul bu amagul ñenti weer néna bu mu nan ni wàccirin bu ko amé nak man nakoy nan bis bu né ba ba muy wasin néna ku am bu war nay néewal ab sëy rawatina bu toll ci 2 ba 3 mois euh 5 7 mois 9 ba 9 néna yoyu yooyu ku ci tollu euh, sey baxul ci mom bu ko xamé ak bu ko xamul ku am bu war nay baril di lek ay fur yi bu ko mané bisub set mu lekk gën gaa neew benn pom tey doxantu tey bañ di toog lu bari tey moytu yenn produit chimique yi ak lekk yu bon yi tey moytu tux ak naan sangara euh, jëlee nañ ci ci euh, Sirrul Jawaahir bu Cheikhul Khadim mu ne jigéen bu tolloo diggante tollu ci weer euh, toll ci toll ci ñetti weer tur yi ngay jàng tëfle ko ca biiram diirub ëmb ba nee na bis bu set mu jàng euh, tur yi tëfli ko ko raay ko ci biir ba bu fekkee sa soxna dafa ëmb rek commencé yal di jàng tur yi di ko raay ci biir bi nee boo ko defee bu doom ji juddoo góor lay doon boroom xam-xam lay doon te it du tàbbi sa wara a mukk incha allah bu sa soxna boo yégee ne ëmb na rek ngay jàng tur yi may bëgg a wax nga koy raay ci biiram saa yoo saa yoo ko jegee rek ngay biir bi jàng yi nee na ji bu juddoo góor lay doon boroom xam lay doon te te du tàbbi sa war tur yooyu nag moo nekk nii abdullahi ibnu omar abdullahi ibnu masoud abdullahi ibnu zubair abdullahi ibnu salaam abdullahi ibnu zeyd abdullahi ibnu ummi maktuum ñoom ñépp ay saxaaba lañu ba jigéen buy soog a ëmb balaa muy am ñetti weer nga bind li takkal ko ko bu doom ja juddoo tamit ñu takkal ko ko mu ne jigéen bu ko def jigéen bu def lii Euh, yàlla dina ko aar buy am doom mat wa dina gaaw te du sonn mukk buñ ko ko takkalee euh, bu doom ji juddoo tamit ñi takkal ko ko yàlla dina aar doom ji dina ko sàmm mooy aaya bii nii wallati ahsanat farjaha fa nafaxna fiha min ruuxina wa jaalnaha wa bnaha ayatan hadihi ummatukum ummatan waxidatan wa ana rabbukum faabudun wa taqatta'u amrahum bainahum kullu ilayna raji'un ñene loolu ñi bind ñu takal ko kon euh tamit bu bu fekkente ne ko xamne sa yu sa soxna ambi amb ba yaqko sa yu ambi rek amb ba day dal di turu dal di yaqko am ñu naan rab la ak shaytan la jinne la neena bo bañé loolu dal ko da ngay bind aaya bi bu ko defé euh ñu dal ko kay takal aaya bobu nak mo nek ni lu ci nekk rek boo koy bind da nga ciy boole aoudu billahi min shaytani rajim ak bismillahi rahmani rahim nga daal di bind aaya baa ngi nii wa labithu fii kahfihim thalatha miatin sinin wazdaadu tisaa qul lillahu aalamu bima labithu lahu xaybu samawati wal ard loolu ngay bind nga takkal ko ko soobu yal suñu borom dina ko mosal ci ah, di ambu ah, ba daal di yàqu mune sortu yusuf boko binde takal ko jigen bu ëmb sa soxna ambe nga bind sortu yusuf takal ko ko kon bu judo jo laydon, gor lay doon tamit dom jo rafet lay doon te yalla dina ko musal te it dina texe inshallah rabbi neena tamit bo beugé am dom ju gor sa yo yegé ne sa soxna sa sa sa yo yoo ak sa soxna ba paré yëpp ñi ngi ñi ci circle jibaar bu señtu wa sa yo yegé ne sa soxna na da nga koy wax mu tëddee wetu nday joram mooy côté droit tam saa yoo sëy ak sa soxna ba pare da nga koy wax na tëddee côté euh, droit tam tamit boo bëggee am doom ju góor boo yégee ne sa soxna ëmb na rek nga gaaw raay biir ba nekk tudde naa la Muhammad te di ko oowee nag Muhammad boo amee doom te bëgg yàlla musal ko nee na del jàng turu yàlla wii di albarro albarro albarro albarro nga koy jàng sept fois di ko tëfli ci boppam nee na it xale ba bu màggee nga koy digal muy jàng turu yàlla woowu suñu borom dana ko aar mu ne jele nañ ci ibnu abbas mo wax sallallahu alayhi wasallam neena jigen bu tolo ci aw mat di matu te mat wa jafe nañu wut ndablu set wécci ñu bind ay bi muy ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kaana xadiisan yuftara walakin tasdiqa alladi bayna yadayhi wa tafsila kulli shayin wa hudan wa rahmatan li qawmi bu ko defee ñu raxas ko mu naan cee wis biiram ak sawukaayam kon mat wa dina gaaw doom ja dina gaaw a génn nee na yonent yàlla Isa mës naa romb aw nag nag way di matu nag wa sàkku ci moom na dama bëgg nga ñaanal ma yàlla na ko yaa kalimatullah udullaha an uxallisa nii mimma ana fii ñaanal ma yàlla mu musul ma ci coonam matu bi ma nekke nee na yonent yàlla Isa daal di yëkkati ay loxoom daal di wax ne yaa xaaliqan nafsi min an nafsi wa yaa muxrijan nafsi min an nafsi wayaa muxalisa nafsi min a nafsi xallisa fa mar nee na uh, fa marat fa marrat bi waladiha fa isa hiya qaima tasummuhu nee na bi yonent yàlla mu ay uh, sa Isa yëkkati ay loxoom ñaan yàlla ñaan gii nii ba gestu dafa gis nag wi am doom ci saa ba commencé foon doom ji mu kon saa yu jigéen tolloo ci wasin toll ci matu te mat wa metti lool nañu bind ñaan gii nii bu ko defee ñu uh, takkal ko ko mu ne wa min إذا حلق ذبذ البحر على فحيزة المرأة اليمنى أصرحت الولادة من جيجين بطولو تي تو مدو ياغ نانيو اوت خورو جيج بوجو نداي من وذكر الامام جزولي رحمه الله في بحر مصنفاته انه قال اذا اتت صبيه دون البلوغ الى امراه في في حال الولاده وقالت يا فلانة انا صغير انا انا صغيره وولدت وانا دون البلوغ وانت لم تلدي neena na su boobaa rek wadaat sarian bi idnillah neena na bu tolo ci matu tamad wa xawa yeex nañu dal di xale bo xamne ne mo ne moy gisagul regal amugul bakar xale bi daldi di taxaw ci ki wasin tamasin machine wa metti ci mom mu daan nako yow diw man day maangi ni amna dom te yow amugo dom neena na bu ko waxe rek dom ja dana daldi gaaw a rabbi kon ñu teje ci euh, ben point bokk na ci ñi nga xamne dañuy ñew te seeni soxna duñu am envie di nekk ak ñoom saa su nekk euh, na ngay saa yoo nekk sa soxna na ngay fexe ba sa soxna di la féetee côté gauche ndax jigéen dañ ko bind ci faaru càmmuñu góor buy féete ak yow di la nekkee côté gauche day am envie delluwaat fa mu nekkoon moo tax loolu lu mat yi bàyyi xel la saa yoo nekkee ak sa soxna da ngay gis ne sa soxna daf lay daw wala amul sa envie nangay ngay fexe saa yoo toog ak moom di ko lëng côté gauche wala booy tëdd ak moom mu féetale côté gauche loolu dana tax saa yu nekk muy am sa envie parce que ci faaru càmmuñu euh, góor góor gi ñu ko bindee day bëgg saa su nekk di delluwaat ci loolu kon nag ñu tëj suñu émission tey bi euh, di leen jox di daje ci yeneen émission di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal yëpp ak jullit yëpp ak waa Dakar Actu ci njital serigne mi nga xamanteni ni ñu yaatal ci kër gi ak serigne selam bay mi nga xamne momit lépp luñ fi am rek ci ay loxom la jaare diko sante diko ñaanal sunu borom mu jàppale ko te jàppale jullit yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان